non seulement point de presse boobu opposition bi du ko tenir. benn deuxième bi mooy lañu wax foofu duñu fa jóge te te rendre ñu compte le procureur dina autosaisir sur ça ci fan la ko teg alors que tout le monde dégg nañu président de la République lu mu wax. Mm. nga déformer ay propos il a bien di que yaa dafa am dafa am euh, comment dirais-je euh, dafa am ay arrêté. Mm-hmm. yoo xamante autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo doon collaborer ak le ak mon prédécesseur. c'est ce qu'il a moom sax dafa wax ne président. décret la wax. alors président arrêté la wax. moom laa wax arrêté la président wax. Mhm. dafa am dafa am ay arrêté yoo xam daf ko gis gars yi jëloon. ñi nga xamante ni son ñoo doon collaborateur. Mhm. Euh, so son prédécesseur mais collaborateur du prédécesseur am ñan la ñan la. qui a droit pour jël arrêté le président du kan moo am droit jël ay arrêté. c'est kii bon quand tu yow loolu lañ la wax waxal si loolu nga tourné wax ne président nee na décret. xam nga c'est très grave. ba pare on laisse ça passer opinion publique bi di ko déglu. am na ñoo xam gis nga euh, la majeure partie danoo nos ñu si ëpp c'est des profanes am na yenn kàddu yoo xamante ni boo koy wax. Mhm. yor yenn ndombal tànk yi di ko wax bon vraiment bu fekkee du dëgg séance tenante foofu nga nekk di ko wax. dafa laaj ñu corriger la nu mu gën a gaaw. dafa laaj heureusement gars yi dañoo gaaw si VAR ci saa si ñu génneel ko fi président Diomaye di waxee. oui su ñuy waxee ni président li mu mais oui xam nga loolu rawul loolu baaxul. gis nga loolu baaxul ba pare tu te dis yow président groupe parlementaire nga bugg a jël sa statut président groupe parlementaire sa statut député bugg a taxaw yaakaar ne lu nekk war nga ko wax c'est très grave. Mm-hmm. c'est grave. yu mel noonu. Mm-hmm. am doyen Momo. Mhm. gis nañ tamit euh, kii di mi daal di day ne li nga xamante ne ni bii mooy nouvelle opposition bi. Mhm. duñ leen bàyyi ñu intoxiqué lii di opinion bi. Mhm. waaw oui comme il elle l'a dit ah. Euh, une nouvelle opposition xaw ma sax opposition laa la di woowee wala lan laa leen di woowee. <laughs> mais en tout cas est-ce que est-ce que duñ leen bàyyee noonu rek. donc loolu moom cest sa dire euh, beneen xeetu opposition la boo xam ne. man maa koy soog gis au Sénégal. mooy ñoo xamante ne nii parce que li tax a jóg opposition mooy réew da nga ciy nekk. Mhm. ne man ko damaa bëgg réew mi. ay nit yor ko nga jàpp ne ni ñu yore réew mi baaxul. Mm-hmm. wala par exemple euh, ni ni ko ñi ñi fi nekkee doon defee. Mm-hmm. mais ni ñu ni alalu réew mi nga jàpp ne ñu ngi koy pasar pasare et aujourd'hui am nañ preuve bi. Mm-hmm. soo gisee ñuy wax Mbourkat di gis ñuy wax euh, aéroport Léopold Sédar Senghor bi. wala ñuy wax Anse Bernard wala feneen ak feneen domaine maritime bi ça prouve que démb amoon na ñi doon opposé wu amoon nañu raison pour opposé wu ndax da ngaa gis ne kat ñi jiite réew mi ñu ngi def loo xamante ne teguwul wu kat ne a yóbbu réew mi man dinaa taxaw opposé wu ne du ngeen fa yóbbu réew mi. bu ñu juumee nga taxaw ne ne lii njuumte la suñ defee lu dul yoon nga taxaw ne li du yoon suñ bëggee teg ci kaw askan wi lu dul dëgg comme dictature bi président Macky Sall bëggoon teg ci kaw sénégalais yi nga taxaw ne duñu ko nangu. Mm-hmm. mais loolu mooy une opposition. mais une opposition boo xam ne tout le temps yaa ngi langaamu c'est-à-dire gars xam nga kañ lay commencé opposé wu au lendemain des élections présidentielles. parce que mm-hmm. opposition bii seen opposition xam nga kañ la mooy waa ji gañewul premier foofu lañ commencé ba ba jusqu'ici ci mm-hmm. même posture boobu lañ taxaw. au Euh, daanaka ba tey amuñ sax lu ñu wax mais au début lan lañ doon wax président Sonko lu tax mu yéeg ci tapis rouge bi moom ak Jomaay nangam ak nangam ba récemment yi ñu doon wax naan président Ousmane Sonko ak Jomaay dinañu xuloo d'ailleurs ma jamal jaan Diagne revenir na si. di wax ne moom bu doon bu doon Sonko dina moytu Jomaay <laughs> c'est loolu daf lay wan ñoom fi seen xel tollu quoi. Uh-huh. récemment soo seen sorte yëpp loolu la. Mm-hmm. depuis boobu et je pense que président ba mu génnee keroog wax li mu wax. Mm-hmm. waroon na mën a tëj débat boobu une bonne mais à chaque fois da ngay dégg benn yoro ja mooy génne non Ousmane ak Diomaye gis naa ne ñoom d'ici peu dinañ am problème. Uh-huh. kee génn fee ne la non waa ji daf koy wor diw dafay wor diw. Mm-hmm. ma jamal Diagne génnaan naan Ous moom bu doon Ousmane Sonko dina def attention ci ci Bassirou Diomaye Faye. c'est-à-dire ñoom loolu la ñuy opposé woo quoi mm-hmm. loolu mooy opposition bi. si sujet sujet boo xam ne yow loolu laal nit ñi génneel la saay euh, doyen mi ngi joxe léegi exemple Abdoul Mbow. Mm-hmm. c'est-à-dire li nga wax balaa deux minutes nit ñi génneel la. ne li nga wax amul. et loolooy problème bi mooy une opposition boo xam ne lu ñu wax suba balaa deux minutes cinq minutes. Mhm. nit ñi génne preuve ne li ñu wax amul. mais président taxaw devant tous les sénégalais xoolal loolu rek maanaam ñàkk loo wax li mu lay poussé ngay def. président wax mu ñëpp dégg président mu ne bi ma ñëwee kat fekk naa fi ab euh, arrêté boo xam ne nii mbiru ndox bi dafa dafa dafa dañ ko tàmbale woon di di yokk. Mhm. mais nga ñëw taxaw président arrêté yow nga ñëw taxaw ne non Sonko mooy Jomaay. pour diir que ñoom du ñu ay waxkatu dëgg. ne li lay wan ne Sonko mooy Diomaye maa ngi koy soog a gëm mooy président keroog dafa wax ne dafa am décret. ba pare jël temps moom Abdou Mbow. moom Abdou Mbow c'est-à-dire moom li mu wax président waxu ko moom mu hmm. sosal président ba pare ne day corriger président bi ne ko moom moo wax euh, décret. Hmm. ba pare di ko corriger naan ko président loolu décret du ko def mais. Euh, arrêté <laughs> arrêté moom moo koy def te waa ji wax arrêté ñëpp di dégg nga ne da koy corriger noonu. Euh. nga pare balaa cinq minutes gars yi daggal la extrait bi président doon wax tegal la tegal la say wax. indil ko baax lii sa lii bu doon réew bu normal. réew réew bu normal xoola dañuy yow da ngay génn ci kanamu public bi ne je m'excuse pour erreur bi ma def keroog wala maa ngi jéggalu ci kàddu yi ma wax keroog président waxul nangam nangam la wax. Mhm. damaa juum. su doon réew boo xam ne wala nit yoo xam ne respecté nañ Sénégalais loolu su amee. Mhm. da ngay génn def sortie ne ah keroog kat damaa toog fee di wax ma wax ne président. bu doon réew boo xam ne respecté nañ citoyen yi mhm, da ngay génn mais génn ni sénégalais yi man keroog moo xam vidéo loolu wala lu mu doon am na réew yoo xam ne sañoo faa génn fen fa yenn fen yi ñëw toog nii jàpp sa ñàmm mais dara xew sañoo ko parce que boo ko defee askanuñ dañ naan mais kii dafa yab nit ñi. Mhm. da ngay wu da génn taxaw bu doon yeneen réew da ngay génn taxaw ne mais man de ah keroog de damaa juum si conférence de wax naa ba mu yàgg ma wax ne président kat moom moo wax ne nangam euh, décret dafa am mais déglu ma bu baax président waxul woon décret mais arrêté la waxoon. Mhm. bu fekkee ne yéen da ngeen a respecté nit ñi. je retire yomb na je retire mes propos <laughs> damaa juum keroog. waa ji kat waxul woon lii damaa dégg mais dama foogoon ni lii la wax. Mhm. jeex na mais ñii duñ ko def xam nga lu tax. du lu bees ci ñoom miin nañ ko <laughs> vaar ak di wax muy deñ euh. dérangé wu leen yooyu xoola li gars naan frégué wu leen. miin nañ ko <laughs> donc foofu foofu foofu la mhm. réew mi toll malheureusement. et mhm. cette opposition bi nga xam ne tout le temps ça doo mës a gis mu poser un débat et puis c'est impossible mënut a nekk. Mhm. yow réew ki nga ko dénk muy doxal benn weer ñaari weer ñetti weer nga bëgg si saa si yow ñëw taxaw ne noonu lu tax lan ngay cest à jamono ji problème si am lan mooy problème. loo xam ne mën nga si dut baaram réellement pour dire que kat ah yéen kat wàcc ngeen yoon. lan lan nga mën a expliquer jamono jii ne ce nouveau régime ñu ngi ci wàcc yoon ñoo xam ne dañoo ñëw fekk réew mi ci loxo yoo xam ne mais xanaa nga ne leen comme li doyen Alpha doon wax léegi léegi justice bi yéex na gaaw leen. Mhm. loolu de d'accord naa ko loolu de boo ko waxee sénégalais ne leen nangu nañ li nga wax. Mhm. boo maanaam euh, lu ci bëri en tout cas loo xam ne mi ngi ci seen kanam soo leen ci ñu ne d'accord. Mhm. mais gars yi tout le temps ci ay xola mbiru positionnement lu am solo. doyen Mimi Touré nee na Euh, ñëwaguma foofu. waaw Mimi Touré nee na <laughs> mbiru ñi nga xam ne ñooy génn di yuuxu nii. surtout waa APR. Mhm. nee na ñi si bëri li ñuy wax gëmuñu si daara xam la la ñuy carte place bi si liste nationale bi. parce que tey soo génnee yuuxu wax wax wax wax ëllëg su législative bi ñëwee mais waa ji dina ne non sama waajee kat wax dëgg yàlla moom sonn na si affaire yi et puis il est brave combat comme ni ñu ko doon waxee mu mun la dugal ci bi nee na gars yi ngay gis ñuy xëy di yuuxu mm-hmm. gëmuñu dara si li ñuy wax dañuy xëccoo place pour mën a dugg nekk ci assemblée nationale bi et loolu soo xoolee loolu moom moo am mm-hmm. parce que gars yi xam nañ ne gars yi dañu war a demaat ci ay législatif mais soo toogee gars yi dañ naan bon grawul dañuy jël ñeneen dugal ci liste bi yow da ngay xëj kii saa yoo toogee ñaari fan génn yëngal après gars yi fàttaliku la xam ne waa ji mi ngi fi woon mhm. su defar liste jotee gars yi dugal la si biir liste bi d'ailleurs <laughs> xam naa <laughs> dina compliqué ci seen côté parce que à chaque fois que ñu dem ñu jëm ci ay échéance ñoom dañu am problème yooyu imaginez fi fi mu toll nii ak crise bi benn Bokk Yaakaar nekk mhm. nga war a defar liste mais imaginez circonstances yi nekk nii li mu jaxasoowee mhm. législative bu war a ñëw tey jii mais benn boo ko yaakaar ci yenn circonstance la nar a demee ci élection yooyu ça va être très compliqué pour eux. Ouais. donc réew mi daal dama dama jàpp ne ñi nga xam ne réew mi moom moo leen ñor ñu ngi ciy gis seen bopp même si am na difficulté yi am mais jàpp nañ ne am nañ ci rafet njort que ñii fi nekk tey dinañ ko jéem a régler. Mm-hmm. ñi si des nag ñoom seeni i problème crypto personnel la ñu am mooy dañoo yoroon nguur gars yi ñoo ñu ko xañ donc ñoom lu ñu def baaxul foofu la logique boobu la opposition bi nekk. d'accord euh, doyen. waaw waaw ci ci boobule jotaay sax kii di Mimi moo ngi euh, moo ngi ne li nga xamante ne ne bii moom la nouvelle opposition bi nekkee maanaam ci côté benno bi am na yàqin ni kii di euh, Macky sàll moo nekk ci seen ginnaaw. bon Macky Sall moo nekk ci seen ginnaaw. ça je ne saurais la dire mais xëy na Mimi Touré est mieux informé que nous pour mën a wax xëy na que Macky moo nekk seen gannaaw. mais li ma mën a wax daal man li ma li di nekk sama bët nii ma gis ko laa mën a wax comme opposition bi fi nekk. c'est c'est une opposition boo xam ci réaction la nekk. une opposition boo xamante ni tant que le gouvernement posé wul benn acte. yow doo jug bon man sax damay dem foofu sori damay dafay am sax tuuti loo xam.